li gën a bokk ci lu ñu war a waxtaane di ki nga xamante ni moom mooy euh, Ibra Naajo bi ñu gis vidéo bi nga xamante ni mu ngi circulé ñu gis ni dafa euh, nekk ci scène bi di waay donc malaise la ñu ko mën a tuddee parce façon dafa jàpp biir bi di wàcc scène bi mais également délégué amaat digganteem ak Wally Ballago Seck Daba Ndiaye bi ñu fi mayoon 30 millions takkaat nañu ko ñaata lañ ko may loolu également dinañ ci wax dinañ wax également ci Aïda Samb ndax clipam bi euh, par rapport ak attente bi ñu bëri quand même ñu ngi ko doon critiquer di dali ngoor mais li nga xamante moom la war a njëkk waxtaani di Ibra Naajo mhm. xam naa du ñàkk moo dinañu illustrer vidéo bi donc euh, ñu ngi ko jëlee xibaaroo euh, si Diaspora TV TV donc mhm. foofu la ñuy xibaar bi mhm. mais gis ngeen ni nag moom da doon way bon ñenn ñu mën nañu ko xalaat mystique laak yooyu parce que am na waykat yu ñu fi doon faral di gis ñuy woy ba mu yàgg gisatuñu leen. yooyu ndax côté mystique la te ndax moom dafa xew. boîte bi muy tëgg tur bi laay fàtte. dafay dafay ah. da koy feesal te instant bi xale yi jox nañ ko bopp trop. ak wayam yu bees mm-hmm. yi. nga xamante ni gis ngeen comme ni ngeen koy gisee noonu moom si boppam mooy way noonu ba mu yàgg. commencé mel ne luy jàpp biir bi dafa mel biir bi mooy metti biir bi la oh, gis nga oh, oh. donc voilà ci moment bi mu tombeel parce que moment buñ nee la dafa démissionné. Mm-hmm. biir suba teel bi mu nekk première soirée juste après. Mm-hmm. je sais pas si démission bi c'est mm-hmm. que c'est confirmé parce que je sais pas. parce que bi je démission bi amee juste rek j'ai vu ci statut Maxu suba teel. mu dugal clip bu bees bi leen ko waaw ne xaar leen ko donc euh, euh, Maxu nag dafa mën dafa mën showbiz. donc moo tax parfois tu vas poser des bi mu nekk première concert am juste après. Mhm. supposé démission et puis j'ai eu Babs Diaspora léegi léegi mu wax ma ni euh, ma doon am pour leer lu mu ne ma actuellement mi ngi principal. Mhm. Euh, ça fait mal ah. ça fait mal aux amis. dafa dafa dafay. boo nekkee homme de média boo nekkee ku leen di tàmm fréquenté. nga xam lii ni muy nekk sur scène mu jékki-jékki parce que artiste way rek la mën. dafay am amour nekk sur scène ku dem ba joxe micro baay rek parce que ça fait mal.

man nag bon sama dama cee am njort gu rafet quoi. Ah, mën naa bañ a jàppale ah mais mais mais nag naa la xamal dara fii Sénégal la nag. waaw waaw bu jugee principal fii laa la ko waxee. dinañ dem si Mamoun yi. waaw non du ñàkk showbiz et puis génération bi mu tombé la. média moom képp ku ciy taxaw. muy waykat di journaliste. di journaliste. voilà di du ñàkk et puis sax mais. Mm-hmm. ba tëgg laa miin rek dafa doy waar. Mm-hmm. ngoone gëm nga loolu yow. ay cat yi. Mm-hmm. man nag wax dëgg yàlla yooyu moom man rek cat laa. dama ñeme bët non mais mën nañ ku ak ku ku taxaw ci écran moom ñeme nga bët. waaw loolu <laughs> moom. on a disque on vient même pas yàlla la da ngay dénk sa bopp yàlla parce que mu boo dafa am yoo xam ba def sa bopp. Mm-hmm. dama yaakaar da lay sonal. mais nag lu existe la de. ah ça existe de ah, ah, xam nga ci dara yow. waaw existe la c'est la c'est la vie loolu dafa exister. je parle pas nit bu la def nii mais catak laa bi dafa exister. nit mais kii ah, dara laaj la xam nga ci dara la laaj. question bu précis la la laaj. dara la xam naa ci dara kay. xam naa ci dara xam naa ci dara. toog la dékk-dékk ne allo rek. non musuma dal nag. yàlla bu mu la ma dal yàlla bu mu la dal yàlla bu mu dal kenn. mais mais feebar moom fu ne lay dalee bi. waaw dëgg la mais euh, euh, naa ne dafay teel mais sinon je l'ai appelé un de ses proches parce que heure bi xam naa ne duñ nangoo wax waaye itam. Euh, ñu ñaan mu nekk jàmm ah. mu nekk jàmm nañ ci rafet njort mm. et puis ku mën a woy la balaa muy yéeg dara leeruñu ci yow. Mm-hmm. gis nga ngóone. Mm-hmm. yow. Mm-hmm. man yéen ñi jël plateau boole ma ca ngóone mi kii Ouzin sax mën mën naa ko gérer Ouzin garaawul. moom dina rek doon tàgg di nga ne kañ laa la tàgg. ci suba léegi. <laughs> loolu waxi suba teel la de. ah d'accord jot na de fi mu toll nii daan de. en tout cas bon xibaar bu mujj bu ñu ci am donc yaa ko wax léegi mm. euh, naturellement mi ngi principal donc xam naa ñun dinañ ko dinañ ko topp dinañ ko topp xool li wax naan wànneen fi muy mujjee ak i gëttam mm-hmm. euh, moom a Naajo alors euh, bu ñu jógee ci loolu ñuy dem si délégué Amar bon délégué Amar dañu jékki-jékki rek dem gis ci STTM moom si boppam mu commencé di wax euh, naan dafa am lu ko metti te dinaa wax euh, dinaa génn wax mais nag luy gaaral Wally ko Seck ñenn nii commencé di def ay texte di bind nii délégué Amar dafa am problème ak Wally Seck bu fekkee euh, Mouhamed dinañu ko may mu may ñu si cof rek ñu tuuti rek ñu dégg un li mu wax mais moom neena dina wax te tey lay wax à partir de 16 heures. Hmm. laaj bi samp mooy est-ce que buñ ko fekkee Wally daf ko tooñ est-ce que war na ci wax. Mm-hmm. d' autant plus que ni mu ko doon défendre ni mu ko jaral dugg na fi kaso. moo moo mais ni mu waxee. Mm-hmm. dañu moom dafa am lu ko metti mu ne depuis 2013 mi ngi mi ngi mi ngi battre Wally. Mm-hmm. mais est ce que duñu xool élément bi. waaw ñu déglu tuuti bu dee mën na nekk Mouhamed vidéo bi euh, bu dee mën na nekk ñu déglu un rek li nga xamante ni euh, délégué Amar daal dina koy junju ci euh, digganteem ak Wally Ballago Seck je pense que mi ngi si yoon bi voilà. wax ne que ba may bëgg waali ba may sopp waali loolu yàgg na ay at la du tey man 2013 xaw ma 2012 rek di baatare waali kon kooku bëgg naa ko ba jonni yàlla tey moo tax am naa lu ma naqari nag te am na lu xew te lu ma xew suba billaahi wallaahi barke Serigne Saliou mi nga xam ne moom laay nooyee suba li xew dinaa ko wax suba 16 heures laa jox média bi rendez-vous ku bëgg xam lan moo xew xoolal sa téléphone nga wala nga xool ci YouTube bi di ñiy woote nag dama leen a ruus rek jox leen cër moo tax ku ma ci woo rek ma mbalak kafore wax la leneen loo xamante ne nii xam nga dina sa dina mana a kii mais nag wax dëgg yàlla wóor na jëmmi siriñ Saliou Mbacke am na lu ma war a wax te dinaa ko wax parce que nag sëñ bi liy jot jot na nag di jot dafa jot te nag am na loo xam ne nag te ñun ay gor lanu muy daw si ñun alors loolu moo nekkoon communiqué bu euh, délégué Amar tey ci ci ci guddi ci WhatsApp am tey lay wax ci seize heures du piège lii nga yaakaar. piège piège. wala jàpp nga ni lu mën lu war a mën a nekk la. man ni ma ci yaakaar mooy. Mhm. xaw ma kan la joteel. mais damay wax man yaa ngi dee xaguma de tay nag may wax la ay dégâts rek man dama yaakaar ne. ak ku munti joteel moom moo xam kan la joteel. Mhm. mais ba dama ne man personnellement bu dee wàll joteel moom war na jomb tey di waxlante wala deflante ak moom. parce que toog na fi defaan na Wally Seck def defaan defaan bu nekk defaan na ko Wally Seck. Mm-hmm. wax bu rafet bu nekk wax na ko Wally Seck. Mm-hmm. tëdd na fi kaso ndax Wally Seck. Mm-hmm. ah arrêté nañ ko ndax Wally Seck. donc ak lu mun a xew nañ ko lijjanti ñoom seen biir. parce que mënoo ànd ak nit tey Ouzin tey mënuñu ànd man ak yow ma tagg la wax la lu baax. Mm-hmm. ëllëg may ñëwaat ni da nga bon même bu fekkee da nga bon ma gis ne da nga bon war naa ko mën a muñ. Mm-hmm. parce que wax bu baax bi nga xam taxawoon naa wax ko ak yow. Mm-hmm. parce que ñoom ñaar seq nañ teraanga ak loo munti wax ak lu ñu munti jotee. taxaw na baat rek ko taxaw na wax fi Wally sekk dafa baax. taxaw na tagg ko fi. nit wax Wally Seck lu bon mu ñëw taal live mu taal tiktok am waxal ko lu baax. nga saaga nit xeex ak nit. Mhm. wax nit lu bon ba ñu jàpp ne la ràpp ci kaso bu tëj nga génn ko ak fierté. Mhm. donc loolu kese waroon na mën a tax tey lu ko waale def am nañ ñoom ay kilifa. Mhm. donc nañ ko deflante seen biir waxtaan ko seen biir. bañ ci dugal ni parce que ba muy neex kenn déggu leen woon ñu woo sénégalais yi di wax. soit mu vocal na ko nga tasaare ko mais munoo tam jël sa bopp def ko benn importance boo xam ne. une deux trois nga woo presse na damay conférence de presse tam il faut mu xaw a dagg daal. tojuñu fenn. waaw da ngaa gis ni daal presse bi daal sa parfois. mais comme kayit nga ñëw. ku am importance ki ñu ñëpp am importance parce que képp ku nekk nit am nga importance. Mhm. mais dafa am yenn yoo xam ne man dama gis ne ñoom dañuy ut bës bu bës bu metti bu fekkee da nga xuloog nii laa jote woon ak moom lii laa defoon ak moom neexoon na en tout cas ngi mel ne sëy bu neex neex jékki-jékki tas ku nekk dem sa yoon nga toog naan ba ñuy sëy defoon na ma lii def dooroon na ma saaga woon na ma nañ ko lu yéen seen biir hmm. Ah? Hmm. man daal li ma ci mën a wax mooy hmm. mook Wally c'était c'était bien. seen diggante défendre na ko fu ne dugg na kaso ndox moom. donc nañ xam lan lañ lañ lay wax rek mais de grâce euh, délégué miinantewuma ak ah, moom. miinantewuma ak moom mais mm-hmm. dañuy wax parfois. mais su ma amoon lu ma koy digal daal mooy li nga xam ne jot naa xew le passé. lu ñu lu ñu ko def lu ko war def. ko wax parce que boobaa dañ naan ko est-ce que lu tax nga toog ba heure bi doo ko wax. Mm-hmm. bu fekkee nag am na lu ko metti bon man su doon maay moom na mu vocalé démb li expliqué na ko. vocalé ah. après comme nee na à 16h nañ ko déglu xool après mercredi dinañ ci yaatal incha allah. incha allah mm-hmm. waaw mi ngi noonu <laughs> délégué Amar woote naan daal ñoom